ñoo ngi Thiès ñu ne Thiès la capitale du rail ñaari gaar benn dëkk ñaari gaar maa leen waxoon ni leen bàyyi naa joxe victoire maa leen waxoon ni leen dëkk yëpp boo dem ni moo raw mais dama juumoon billaahi dama juumoon jégal leen ma mais dama leen di wax ni li xew Thiès amul feneen li ma gis Thiès gisuma ko feneen am baar am bu leen neexee baar ma Thiès li mu mobilisé taale ma mu tàkk 19 heures passé de 10 minutes dugg seen biir kër yi ndogu waa Thiès génn fii nii nga xam ne diggu Thiès oto mënul jàll Jakarta mënul jàll dara mënul jàll kontaan ni matt mu tàkk ñu sañce sañce yu rafet assorti assorti jaune et blanc ngay gis t-shirt jaune et blanc yi su la gën a sañce su la gën a sañce pancarte yi en haut ñu standé la